Donc bonjour mesdames et messieurs. Ces déclarations de presse fait suite aux nombreux appels, messages et visites pour rassurer toutes ces personnes, parents, amis, proches, camarades et collègues que j'ai décidé librement de me soumettre à cet exercice. Cela dit, il ne s'agit point d'une tentative de justification ou encore moins d'explication. Il s'agit simplement d'un exercice de clarification pour lever les équivoques, les malentendus, les inquiétudes et même les contre-vérités que notre séance de travail à la présidence de la République a pu soulever. À vrai dire, il ne s'agit même pas d'une audience avec le président de la République, encore moins avec le chef de parti politique à faire. Il s'agit d'une séance de travail qui malheureusement s'est déroulé dans un contexte politique marqué par la transhumance, le débauchage de maires et de conseillers de l'opposition, après la dynamique victorieuse de la coalition Yewwi Askan Wi aux dernières élections et les perspectives heureuses qui s'ouvrent pour les élections Et l'on a vite d'entretenir à dessein la confusion pour semer le doute dans l'esprit des populations, susciter le mépris de nos camarades et la méfiance de nos alliés. De quoi s'agit-il en vérité Lors de nos visites de proximité durant la campagne électorale, nous avions rencontré les collectifs des habitants des cités Diamalaï, Poste et Kinoubaï. Les populations nous avaient fait part de leurs préoccupations légitimes relatives à des constructions sur le domaine public maritime depuis plus de deux décennies. Cette situation Compte tenu de causer des désagréments, des nuisances et une altération du cadre de vie dans les cités et au niveau la plage. Il était donc convenu, comme pratiquement dans tous les comptes de saisir la plus haute autorité du pays afin de trouver des solutions. Le collectif, sous la conduite des responsables de la cité Djamalaï, ici présents, en accord avec la mairie, avait sollicité une rencontre avec les autorités étatiques, le domaine public maritimes, rappelons-le, ne pouvant être classifiés que par décret. C'est donc au nom du principe intangible de la continuité de l'État et du service public, malgré les atermoiements et le laxisme de l'équipe sortante sur cette affaire, que nous avons décidé d'accompagner le collectif dans la recherche de solutions et le cas échéant dans la valorisation du site par l'aménagement d'aires de jeu, espaces marchands et de tout autre projet La séance de travail dont il est question s'est déroulée en présence du ministre directeur de cabinet du président de la République, M. du ministre conseiller, M. Morgan, avec toutes les parties prenantes. Les différentes parties ont exposé les motifs et souhaité une heureuse à ce projet qui depuis des années. Nous avons eu en cours une attentive des représentants du chef de l'État qui ont promis de diriger telle affaire De par là, la délégation remercie les autorités concernées pour leur concours. Naturellement, aucune question politique, je le précise bien, ou personnelle, n'a été soulevée. Pour ma part, je dois préciser que lorsque j'ai été informé de la rencontre, j'ai immédiatement informé mes collègues. Mieux, j'ai pris le soin d'informer mon leader, le président Khalifa Ababakar Sall, et mon grand frère, le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz. Il n'y avait donc absolument rien à cacher. La rencontre s'est déroulée en plein jour, au but et au sud tout le monde. Je déplore seulement le traitement actif et partial sur fond d'émotion, de colibé qui a été fait et les conséquences inutiles que cela a engendré. Moi, Sidna Issa Laïssan, fils aujourd'hui maire de cette commune par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la confiance des populations, par l'entremise de la coalition Yewwi Askan Wi, je le dis, je le répète, il n'a jamais été question d'audience politique ou d'une volonté quelconque de transhumance. Cependant, je voudrais dire en dernier ressort qu'à chaque fois que le fonctionnement de la commune exigera de rencontrer quelque autorité publique des plus hautes au subalternes, nous nous prenons le devoir responsable des citoyens de travailler avec ces autorités. Parce que les collectivités territoriales, démembrement de l'État, sont appelés à collaborer avec celui-ci. La démarche républicaine que nous avons entre en parfaite concordance avec nos principes, inculqué par les enseignements de Sidna Limamou Laye alayhi salatu wassalam. Yopoa, Yopoa, le mandat que vous nous avez confié ne saurait pour nous être un moyen de troquer l'intérêt supérieur de la collectivité pour nos intérêts personnels. Rassurez-vous, il est bien gardé et je ne le jamais. Cette précieuse confiance que vous portez à notre pays. ensemble ngir yokk ñu bokk marchons vers l'essentiel merci beaucoup. donc mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm li ñuy def nag dañu ko def ak suñu tayeefu bakkan ak suñu teeyu bakkan ak suñu teeyu xel ndax suñuy mbokk suñuy wéjur suñuy xarit ak suñuy am itam bu jëlee nii. amatuñu jàmm ci li nga xamante ne mooy wax bu ñaaw bi dox ci réew mi ak ci dëkk bi taskatu xibaar yi di ko relayer ak réseaux sociaux yi ñun dañu dénk ab ko ay gor yu ñu wóolu dénk ñu jàppale ñu am na ci Yoff fu ñuy oowee cité jàmmalaay di ndey ci bépp gox bu ñu sanc ci Yoff ci bees ñoom dañu xamal seen coono bi ñu dëkk ñaar fukki at ci ren coono bi ñu si teg pour lan mën a am géej ndax ñëpp xam nañ ne Dakar foo dem foo lamb géej gi privatisé nañ ay nit ñoo ko moom askan wi moo ma tudd ko te ñun nag askan wi moo tax ñuy sonn ci wàllu boobu nag bi ñu demee ba toog ba def ay tournée ba gëstu waxtaan ak waa collectif bi ku ci mel ni suñu yaay ji su fi njëriñ Diouf toog di symbole ci xeexu littoral bi jàmbalaay biñ ko déggee suñu yaram dafa daw daw ndax ay nit lañ daw it ndax autorité publique la la war mooy taxawu sa askan ci wàllu boobu nag ñëpp xam nañ ne lépp lu jege tefes décret présidentiel moo ko mën a déclassifier nit ñi mën ko dëkki wala mën ko jariñu ci wàllu boobu ndax président Macky Sall moo ko wax na rapport yi mu jot point bi ci njëkk biñ koy alerté mooy les conflits fonciers donc képp ku am conflit fossé ala rawati bu nekk ci booru géej mbakke ne loolu ci moom ngay dem pour pour ay pexe pour askan wi ci wàllu boobu talaata bi ñu weesu ànd nañu pare pour def liggéey boo xamante ne séq nañu ko ak ni ñu waa présidence boole muy le ministre d'état directeur de cabinet du président Mamour Saleh ak le ministre conseiller Borloo ñu ànd ci lan ak suñu yaay bi suñu ànd ci ak le septième adjoint au maire Ibrahima Fall Ousmane ci ak la conseillère municipale secrétaire d'élu Mame Binta Diop ak it ki ñuy wax Samba Dia jiite conseil de quartier bu Diamalaye lu tax loolu pour bañ ëllëg ñu teg ko tuuma ne demoon naa pour it li ñu wax ne kaay la ñu liggéey mooy l'axe un de notre programme la gouvernance ouverte ci wàllu boobu la ñu àndee ak góor yu baax yi. dem palais de la république bi Sénégal yëpp bokk bi Sénégal yëpp moom ñu fay yore askanu Sénégal gépp ak alalu réew mi ñu war a waxtaan lépp ñu askan bi xanaa nag loolu kenn du ko tere biñ koy def nag bëccëg nag tàmm lañ ko def ndax ñun duñu laxal ay góor ñu ñu fii ci Cap-Vert biñ koy def biñ koy def tiituñu si parce que waa yoon ñoo ñu jox mandat pour ñu doxal leen waxal leen te waaye ngaan buñ nee décentralisation wax collectivité territoriale mais kan mooy suñu yaay kan mooy suñu baay état bi Sénégal naka nga mën a nekk maire ci dëkk nga ne doo wax ak état doo wax ak ñi amee état xanaa fa ñëw fas yéene woo liggéeyal sa askan ñun nag muy taw muy naaj muy ngelaw ngelaw boobu taw beeg naaj bi ci daan lay mujj rek àll guddi àll ñun nag sëriñ daal Issa Laye Samb bi tudd dëkk Yoff màggee Yoff yaroo Yoff di sant nag bu baax. collaborateur président yi ñu a déglu ñu ba tey suñu doxalee tax na ay pexe mu ngi jub pour ay pour ay maanaam solution am suñu tudd nag suñu taxawaay ci yoon may ñu ñu jaay suñu ngor di def lu ñu gëmul Seydina Limaamu alayhi salaam mooy suñu maam loolu la yàlla dogal loolu lu mu doyul ci àdduna du àdduna àdduna moo lay doy ndax nag dañuy judd dañuy judd dañuy rek nga démb nekk ci nguuru àdduna ci diine balaa nguuru àdduna nii ñu koy def suñu loxo donc du pouvoir moo ñuy diital du pouvoir moo ñuy soppi ba ñu paree ne allah kulli am du nguur moo ñuy changé du nguur moo ñuy soppi ni nguur du ci penco ak dëgg am ñëpp te loolu mooy ci ci wàllu boobu nag la ñuy daal xelu askan maa ngi bokk ku ñuy wax Yewwi Askan Wi ànd ak ku ñuy wax Khalifa Babacar Sall ànd ak ku ñuy wax Barthélémy Dias te man réew mi moom ci lépp lu may def doon ci sama activité ci politique ak ci mbay mi ñoom nag ñu ànd bokk ci coalition bi ñu wax Yewwi Askan Wi ñu wóolu ñu investir ñu ba ñu am daal donc nag góor ngeen ko seqal du tey laay dem du suba laay dem président Macky Sall benn yoon laa ko mos a gis mooy bi ñuy teerlu yooyu ñu félicité ñu ci liggéey bi ñu def. ba ñu am dara kon nag dañuy dalal xelu askan bi wax leen ne fa ñu nekkoon at ak juróom yi ci ginnaaw ba yàlla defal ñu naan gisuñu alal wala nit bu mën a fokk suñu bët fokk xel tiital ñu xoxatal ñu bañ tekki si ginnaaw taxaw soo taxaw la ñuy def riiru ci ànd ceeg waa yoon nag pour la ak njub ak dëgg ak yóbbu na jëm kanam mën a loolu doon kàddu yi di leen sant di leen baalu baax ndax guddi gi kenn dalawul kenn dalawul ndax coono bi ndax coow bi waaye nañu dalal seen xel bu dul woon tiitaange mbokk bi tiitaange xarit yi ak kilifa yi mën nañoo toog ñetti weer lañu wax ndax xalifa daf ñu jàngal ne boo nekkee ci liggéey sa askan boo nekkee ci yoon tu n'as pas à te justifier à expliquer loolu dama bëgg mu leer mënoon nañoo bàyyi ba ni ko defee yoon yi passé ba conseil municipal waxtaan seeg conseil yi te boobaa du jur dara suñu diggante ak ñoom parce que ñoom wóolu nañ ñu xam nañ ne góor lañ ko seqal mais dalal nag ci ku jëndal bi xelu jeunesse sénégalaise gis nañu ne baal nañu ñëpp suñu wéyjur nag kilifa la ci réew mi seet la ci Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam. personnel ñu koy saaga saaga yu ñaaw. waaye ma leen yóbbante nee na jéggal na ñëpp ndax doomam moo yëkkati loxo ma ni doomam moo koy jéggal day jéggal sama kilifa yëpp asalaamaaleykum wa S'il vous plaît, on va organiser le jour. Je tiens à remercier le collectif de Jamalaï encore une fois, représenté par notre moment. À remercier aussi M. Moussa Taï, conseiller politique du président Khalifa Ababacar Sall, Madame l'honorable les membres du municipal et toutes les populations de York et toutes les autorités publiques de la présence, c'est ça. Oui, oui. On va limiter les questions à 5 pour des raisons de contrainte de temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, d'accord. Monsieur Koulibaly, nous sommes à votre écoute. Monsieur Koulibaly, la municipale de Dakar, vous avez dit que vous avez pris le soin d'être accompagné. Oui. Parce que vous avez une certaine perception des gens qui sont en face. Aujourd'hui, l'exploitation qui en est faite fait de vous quelqu'un qui est uh-huh. Je ne regrette pas d'avoir été au palais de la République. Parce que je suis mandaté par des concitoyens qui, depuis 20 ans, subissent une situation d'injustice. Ces populations m'ont fait confiance. Et je devrais, même avec une arme, aller me battre pour le bonheur et la satisfaction légitime de ces populations. C'est ça la raison. Prochaine intervention. Une autre question. Oui, question. Une autre question. C'est bon. amul question kay jeex na sant yàlla waaw. yàq gor day lañu mën. yàq gor rek moom la ñu am waaye war na yàlla ne dinañ tëdd di nelaw dinañ sooy dañoo sooy at mu jot dañoo sooy heure bu ñu jógee yëkkee rek damay mbëkk sa caméra bi